Challenge you. Challenge you. voilà dafa def voilà na ñam kala ñu dem waay ko koy kala ñu dem ya nam be wa d'abord man dem ñu boy boy gars yi dañu war a filmer d'abord mata ñu filmer daal suñu portable après ñu envoyé ko dinañ leen libéré dinañ leen bay de waaw gars yi ñu ngi ini manifestant cab yi ñu ngi nii waaw manifester nañ ba jël gendarmerie bi ñëw nañ ba dugg si biir gendarmerie nag waaw bi moo ci desoon Sénégal gis nga fu muy jëm waaw gars yi riposte nañ bu ñëw bu biir gendarmerie waaw nii nii la xewee fii ci Cap Skirring gars ñëw nañ ba nangu gendarmerie bi bul sax sonn nangu nañ gendarmerie bi de waaw yaa ngi cas seen doléance fii la xewee gendarmerie nangu nañ gendarmerie bi leer naa lay wax na sax sonn gars nangu nañ gendarmerie bi

Si en ce moment, soit tu les transporteurs qui sont en grève, nous barré la route. Hein, ouais, mais il y a nous les filles, hein, mais euh, soit tu depuis euh, presque une heure de temps, auto mënul dem, auto mënul dikk. Donc euh, ñu avons fii jeunes éparpillé un peu partout en ce moment. Hein, police, les forces de l'ordre mais les jeunes ils sont sont très nombreux. Donc dañuy xaañ aussi pour ne pas exposer le voiture.